salaamaaleykum salaamaaleykum chers internautes Seneweb TV ñi ngi fii Thiès ñëw Thiès seet si benn ndaanaan ndaanaan boo xam ne ne doublé d'un Baye Fall muy Khadim Rassoul Joxeer Khadim Rassoul Joxeer su ma nee ndaanaan doublé d'un Baye Fall xel yi day dem si Pastef ak pas-pas bi mu am su nekkee si terrain yi ak tamit bi mu nekkee en dehors de la du terrain tey on est venu découvrir l'homme Khadim Rassoul Joxeer et le joueur Khadim maa ngi lay nuyu baa yaa ngi am jàmm bi moom mooy sa carte d'identité mooy sa carte d'identité munul ñàkk munul ñàkk waaw ah, bàyyi la nga nuyu mbokki téléspectateur Senop TV waaw bisimilah maa ngi siyaar mbokk sénégalais yi di nuyu waa bitim réew di nuyu ñëpp nuyu sama papa ak sama yaay euh, di leen jaajëfal di kontaan ci seen teewaay mhm. xaadim man moom maa ngi am mbégte teew nekk ak yow mais dafa am loo xam ne ne carte d'identité xaadim rasul joxeer la mbëkk bi Baay Faal bi Cheikh Ibra bi kan mooy Xaadim Rasul Joxeer euh, Xaadim Rasul Joxeer mooy benn ndaw sénégalais boo xam ni suñu boroom da ko nattoo football euh, bu ñu sañoon doon leneen lu dul footballeur mais suñu boroom moo ñu si nattoo ndax amoon nañu yéene doon ay isbo yooyu noonu xam nga ndax ñoom dañ leen ñee mais di sant yàlla rek suñu boroom jaarale ni ñu doon ay ndaw yu yëngu ci football suñu borom dimbal ñu si ñu ci dox di ci dox bi ñu nekkee xale ah, ñu teel a bàyyi jàng yi dañuy football suñu suñu waajur yi taxu ñu si waaw. loolu am na solo euh, mais dama bëgg xam foo màggee foo juddoo say première sa enfance foo ko passé ak noo ko passé. waaw euh, maa ngi juddoo Louga euh, Thiès laa màggee ak Dakar mën naa ni Bamba partout là parce que dama doon wër rek mhm. Grand Yoff HM Grand Yoff Cité Millionnaire Derklé Dieuppeul euh, zone boobu laa màggee fa defee sama enfance mais au moment donné ma nekk Dakar gis Dakar nu mu yëngoo ma ni naa gàddaay ñëw Thiès fii laa gën a mën a concentré pour am li ma bëgg waaw. kon yow doo Thiès waa d'origine. non sama yaay sama côté yaay ñooy Thiès mm-hmm. waaw. loolu am na solo eh, Khadim yow ak football fan la commencé. waaw depuis ndaw laa ah, ñu nekk ay tout tànk dëkk Grand Yoff euh, ma gis sama xarit yi nekk dem di football yi benn jour ma ma topp sama benn xarit ñu doon jouer benn école de football. Pa Moussa moo ko demee après Pa Moussa gis ma ma joué fa match boo paree dem ñibbi naka tamit may wër mu dem wër ba gis suñu kër mu ñëw toog sama yaay ni ko dama soxloon sa doom bi pour mu ñëw sama école de football parce que dama gis si moom talent boobu dañ si doon footballantu nii rek après si la la sama yaay dénkee ma Pa Moussa ma dem si école football Pa Moussa def naa ay test jàmbaar ak yeneen sama yeneen copain après jot ma réussir ma découragé moment boobu découragé naa boobu am nga rek kii woon football bi quoi ma toog ay deux ans yoo xam ni dama doon nekk di dawal ay patin xam nga <laughs> ay rouleur yooyu noonu. Hmm. ma dem ba toog ba xam ne lii doxul. xam nga football bi am naa si talent ma ni quoi pas xam nga ma arrêté loolu yëpp xam nga focus si football bi j'ai cadé Walidaan euh, après si la Walidaan bu Thiès Walidaan bu Dakar bu Dakar après si la dawee ñëw Thiès toog fii j'ai fi ay quatre ans. nawetaan voilà si laa delloo Dakar ñëw ab ba may nekk fii nawetaan nag après joué naa fi US Rail junior waaw si la après Rail dem Listana jóge Listana dem AS Pikine après AS Pikine laa jaare noonu dem Anderlecht mhm. avant avant ñuy dem foofu noonu ñu taxaw tuuti euh, bi nga da nga ne da nga commencé affaire yi am nga découragé deux ans mais si lan nga seetlu wala lan nga jàngat ba ne peese naa sama bopp football bi mën naa say lekk xaalis. waaw boobu dama dama dama jëloon yoon boo xam ni waa gis naa ni loolu du sama yoon. xam nga affaire affaire ndaw. mooy bari yoon di dawal ay rouleur rek yooyu noonu xam nga. doonu ma woon boobu xale laa nag. xam nga mm-hmm. doonu ma woon ne entraînement yi ma gis ni talent bi nekk na si man ñëpp dañ may xam nga dañ may tudd si sama ndaw talent bi nekkoon ci man ak facilité bi ma jékki-jékki ma ne lii moom du sama yoon quoi. bàyyi ma jéem a wu ci football bi ok lii du sa da nga toog def un constat xam sa bopp xam ne ne lii doxul naa def lii parce que lii mën na doxe li nga bëgg tamit accomplir sa àdduna football bi mën na la ko may. léegi bi nga décidé ne da ngay concentré wu carrément si football si nga demee USRA. waaw boobu si la non après boobu ay nawetaan cadet lañ doon joué dama joué cadet après ba ma joué cadet si laa ñëw fii Thiès. Thiès ok léegi léegi étoile Lusitana jaar nga fa mais Pikine daf mel ni championnat Sénégal surtout championnat local bi Pikine la la gars yi gën a gën a gën a gën gën a bàyyi xel. waaw waaw Lusitana laa jugee ma dem Pikine 2014 2013 2014. ñu dem hivernal Gambie après année boobu fin année benn at laa fa def def mhm. presque joué ma joué ma sax cinq match waaw. Mhm. joué cinq match benn benn at laa fa def après dem direct Anderlecht. Anderlecht gi sama profil. boobu Cheikh Kouyaté dafa waroon changé dem West euh, pas West Ham Arsenal. Mhm. far mu échec. après beneen année si la si la demee West Ham ñu ñu gis sama profil nii war naa mun a remplacer Cheikh ñu yónnee ma invitation après ma dem foofu. ma dem Anderlecht waaw ma dem Anderlecht mu nekkoon lu metti def naa test trois mois test trois mois xam naa ne amul si jour moom. waaw treize trois mois loolu. waaw xaw ma mën a. xanaa période bi nga fa demee dafa nekk période sedd. waaw janvier la janvier non non janvier laa def test yi. Mhm. mais Belgique janvier day day sedd de. janvier seddaay bi waaw ma dem xam nga seddaay bi mooy loolu dama doon entraîné sax am benn moment dama doon entraîné di jooy. parce que entraîné di jooy. waaw parce que non xoolal xaadim. waaw dawal naa yaa ngi accéléré mbir yi. <laughs> Euh, fan la la waa Anderlecht gisee ba pare doog la yóbbu Pikine la gisee yóbbu la. waaw ok léegi yow nga waroon remplacer Kouyate mais. trois mois yooyu noonu may nan la tax nga ne dafa metti woon trop. waaw parce que dama ñëw ci période seddaay jóge Sénégal direct. xam nga mhm. dem Belgique xaw ma seddaay beeg yooyu noonu xam nga. Mhm. mu ñëw ci mu metti loolu ma daje fa ay xeetu dëkk bu nekk jour bu nekk quoi mais chaque semaine dañuy wàññi ñaar chaque semaine dañuy wàññi ñaar diggante janvier ba mars chaque semaine dañuy wàññi ñaar mu des maag benn Ivoirien mujj bi. xam nga rek affaire am na ñoo xam ne am na yenn dirigeant yoo xam ne noo def am ñoo xam ne dañuy jéem a indi ay affaire de complication yooyu noonu ñu ne léegi dangay ngay retourner dem AS <laughs> Pikine pour ñu ñëw xool la foofu xam nga sama ménage bi ne yéen yéen da ngeen dof wala lan yéen kii mi ngi fii te te ba may nekk durant trois mois yëpp def naa test def na testé nañ ma si côté bu nekk position yëpp gée naa ko. waaw ah, parce que yow da ngaa polyvalent. waaw testé nañ ma position bu nekk position testé nañ ma ko léegi après. ñu ne léegi dañ lay signaloo six mois si six mois yi bala euh, six mois yi di jeex ñu relever option yi pour trois ans genre yooyu noonu léegi ba ma signé mars après deux semaines laa si teg sama genou yi di metti te xaw te gaañu ma quoi xam nga suñu borom natoo ma loolu sama genou yi di metti ma def fa mars ba presque juillet géewu ma. dama doon dama signé dama signé. fekk sa journée après. non dama signé mu def deux ans. Mhm. entraîné tuma mënutuma dox yéeg escalier sax mënuma ko. loolu doy na waar di ma def scanner gisuma dara def écho gisuma dara après mujj ma ni est du ma ñëwaat fii Sénégal ñu ma noonoo xam nga toogal médecin bi bind rapport comme que blessure bi dafa bizarre kenn xamu ko quoi. Mhm. waaw du ñu am du ñu du ñu jël risque di ko signaloo trois ans ay yooyu noonu quoi. Mhm. vu que joueur bi dafa blessé mais moment boo boobu Belgique boobu gars yi def nañ ma si média yi dégg nañ ma foofu genre yooyu noonu. Mhm. Bruges Bruges naroon ma jël. xaw ñoom ay concurrent lañ Bruges moment bi ma nar a si la loo ko doon ñëw non avant may signé Anderlecht mhm. bañ ma nar a libéré yooyu noonu ba ñu yëgee ne Bruges ñëw nañ fi di ma xool rek si lañ mhm. profité signé loo ma six mois yooyu noonu quoi. mais après six mois ba mu jeexee direct loo ko doon dañoo yëg ni kii bi jeex na. six mois ñu jël ma direct signé ma quatre ans sans. sans sans hésiter quoi. sans hésiter te Leclerc tamit Belgique la nekk. waaw Belgique la première division si lañ ma jëlee si ñu looma 4 ans fa demee métti woon na tamit commencement bi parce que hivernage bi dama doon tuur xewal sax parce que si montagne lañ doon yëg mais li ma doon yëg ci douleur man lay ko xam. Oh. mais bu ma xalaatee Sénégal rek xam nga ak métaay beeg yooyu noonu man kon affaire góor la bàyyi ma bàyyi ma jàpp si genre yooyu noonu quoi mm-hmm. waxtaan ak médecin bi ni ko samay tànk day métti ba xam doo mën a. xam nga defar ay affaires yoo xam ni douleur bi dina wàññeeku quoi pour may mën di entraîner di ko camoufler mhm. mu jàppale ma si nag xam nga di ko defal ma ci entraîner di ci ba mu bàyyi noonu mhm. après ma joué fa trois trois années après si laa jugee foofu dem Adana Adana bi ngay dem euh, mbokki internet yi di leen fàttali ne moom actuellement mu ngi championnat Turquie équipe bi ñuy wax Adana Deni Sport adanaa deni sport boobu balaa ñu faa ñëw changement d'environnement bi nga nekkee woon Sénégal maanaam nga nekk Sénégal di sa yaay di sa pap di entraîner te yow ku xool ni ngay waxee sa xam ne dangaa ngaa bëgg lu calme bu pare calme nga dem fekk beneen environnement beneen monde peut-être yow li nga jàpp xam mooy lan par exemple bokk dimbalanteeg yooyu yow loolu nga xam ne nga dem fekk foo xam ne ne bopp sa bopp la ba pare tamit loo ñaqul doo ko jariñu changement d'environnement bi nun nga doon def pour adapté aussi ak euh, ndax metti woon na trop waaw man dama nekk nit koo xam ne fu ma dem damay bokk xam nga ndax taalibe bi ñu sëriñ bi dimbalee ba ma nekkee Belgique man kese maa dëkkoon ay trois années man kese maa dëkkoon dëkkuma kenn par la suite appelé sama benn sama frère Mohamed Mohamed Jouer ak sama benn xarit ñëw dëkk si man booy ñëw adanaa nag ñu bëri ñu doon wax non pourquoi muy dem fii parce que amoon naa ay yenn proposition genre mm. mais période boobu euh, Arana dañoo teg dañoo amoon ambition boo xam ni gis naa ne projet boo xam ne arrangé na ma quoi mm-hmm. financièrement et sportif mm-hmm. léegi euh, si la si la si la si lañ ma ñuy proposé ma contrat beeg yëpp mu mu mu arrangé ma mm-hmm. ma ne pourquoi pas ma dem ci défi bi quoi ba mu ñëwee club bi dañoo amoon projet boo xam ni depuis trente vingt sept ans mosuñu yéeg yéeguñu quoi yéeguñu gën nañ yéeg depuis vingt sept ans. Arena Denizspor waaw depuis vingt sept ans lañ toog yéeguñu yéeguñu. suñu première année ñu joué dem playoff bañ demee playoff jotuñu yéeg deuxième année bi ñu joué dem final playoff ñu perte ko contre Alassane Ndao mi woon euh, mu formé à Dakar Sacré-Cœur troisième année bi si lañ ñëwee yéeg direct. xam nga mm-hmm. waaw mu doon loo xam ni lu historique la foofu ma euh, maanaam ambition yi taxoon ma dem foofu ma réussir ko xam nga mm-hmm. mais environnement bi ak ni mu fa demee ak yooyu noonu yëpp dama ñëw rek bokk waaw dama ñëw rek bokk naar yi moom dañoo am kii nu nu ko tuddee sax ñoom dañoo dañoo bëgg nit ku ñuul mm-hmm. teg si ñoom dañoo dañoo fonk dañoo fonk doomu aadama quoi en plus ñoom ñoo gën a fanatique waa Europe quoi ñoom dañoo jox ak jour wàllam quoi dañ ko jox dañ ko jox gëddëm. Mhm. waaw foofu pour nga génn dem ay réseau genre sax problème la parce que nit yi xam nga rek duñ la duñ la bàyyi noonu. quoi dañ lay wek wek bu jar waaw waaw waaw. loolu loolu nekk na lu wax nga lu am solo ñu àddana des sports dem D deux D un jour bi ñuy sargal gars yi ñu gis na sa drapeau Sénégal lu bëgg. nga tamit nga nga laaj gaa yi lu nekk la ñuy teg yow nga teg soo Cheikh Ibra dugg ak moom <laughs> loolu moom jour boobu xanaa amoon nga mbégte bu bu rëy de. waaw waaw jour boobu waaw bokk na si jour yi ma gën a neex parce que ñun xam nga sëriñ bi la ñuy dund fu ñu dem dañ koy représenté xam nga ñun moom amuñu complexe di di wane sëriñ bi quoi xam nga mooy li ma lay wax yàlla moo ñu nattoo ñu doon ay footballeur tey bu ñu sañoon ay is bu la ñuy doon wala doon leneen loo xam ne xam nga suñu borom. moom la kii quoi mais dañuy sant yàlla ba ñu si xam nga suñu borom moo ñu ko nattoo mënuñu si dara. Mhm. léegi dañoo waxoon jour bu nekk xam nga vu que dañ doon gis may teg tout temps ay sikar ak yooyu noonu xam nga. si mhm. verser yeeg xam nga. léegi après si par la suite si lañ waxee jour bu nekk na yónnee benn benn son boo xam ni xam nga naka dugg see ma yónnee leen bamba fépp bamba partout bi. Mhm. si la si la si la si la defee loolu noonu xam nga ma gis gars yëpp partage ko Sénégalais yi xam nga ma leen di jafal ñu kontaan si loolu parce que mhm. sëriñ bi moom xam naa ni mhm. ñëpp ko bëgg xam nga muy tiijaan beeg yeneen tarixa yi mhm. voilà loolu nekk lu am solo euh, ñu ñu ñu Arène des Sports yéeg de seen première année si première division bi turc bi metti woon na Euh, non début bi méttiwul woon parce que ñun dañoo am début bu baax dañoo débuté rek première partie bi ñu jël deuxième presque xam nga waaw kon début bi difficile quoi mun naa ni fin bi moo xaw a difficile su ñun xam nga dafa fekk peut-être xam naa waaw am ay petits détails yoo xam ne lu waral maintenir ñu pour dem Europa quoi mm-hmm. mais début bi c'était pas difficile quoi. c'était pas difficile. Euh, c'est deuxième division. ak Adana Sport sanctionné par Monte Ligue 1 et nga jot coup de fil Aliou Cissé Khadim Rassoul joxe rek convoqué en équipe nationale du Sénégal mbégte boobu noo ko dundee. waaw kontante rek parce que bépp jour bi football da ngay rêvé sa dëkk. waaw nekkul loo xam ni nag euh, daf ma bett quoi parce que période boobu maa nekkoon ci tempo bi di def samay performance am na sama yenn xarit sax yoo xam ni. dama doon gëmloo nii leen man ci deuxième division bi lañ may woowee équipe nationale. Mhm. xam nga mu doon lu ma lu ma lu ma bettoon nag genre ba si si ab si si si période boobu xam nga Aliou ba ma woowee li ma njëkk wax mooy xam nga ma ma ne ko waaw mun ma est-ce yaa ngi may rappeler ma ne ko si si AS Pikine parce que ba may nekk AS Pikine ñëwoon nañu entraîner foofu mhm. mun ma voilà xam nga. sa dëkk da la soxla genre yooyu noonu ma ko waaw voilà mu kontaan si trop xam nga mu doon loo xam ni fierté la quoi si sama famille ñëpp waaw di ñaan yàlla mu continuer ñu espérer prochaine convocation incha allah. noo dundee sa première euh, euh, convocation maanaam au sein de la tanière entraînement yi match beeg yooyu noonu. waaw jour yi ñun ñëpp xamante nañ xam nga. waaw euh, am na ñoo xam ne ñoo juyandoo am na ñoo xam ne saa bu ñu. comme ay yan yéen a juyandoo. Euh, Pape Abou Cissé Ousseynou Ba euh, ñeneen ñi dañuy daje. Ah, dañuy daje match mm. chaque chaque chaque vacances genre xam nga ma ñëw ñu yaatal ma ubbil ma sama grand cheikh ku ma koy nuyu di ñuy ñëpp mais cheikh sama sama sama féete la quoi vu que ba ma ñëw àndal rek dañ ma doon xool kon cheikh ku nouveau Cheikh Kouyaté lañu ma doon wax xam nga mu ñëw ñu yaatal ma foofu xam nga mu nekk group boo xam ni famille la gisoo group bi mooy continuité ba léegi quoi. Mhm. Mhm. groupe bi mooy continuer de léegi di leen fàttali ne moom lii point fort mooy sa polyvalence Khadim mun nga jouer défenseur central gauche mun nga jouer arrière gauche mun nga jouer milieu défensif macha allah taille bi baax na mais. Turquie nga bëgg a toog wala amoo ay yeneen proposition en France. waaw am na yeneen proposition instant yi ñuy xaar xam rek suñu boroom moo yor lépp xam nga nit moom fu muy yem suba kenn xamu ko. Mm-hmm. waaw dañuy ñaan yàlla fi ñuy waa fi ñuy fi ñuy dem mu doon lu gën si ñun rek. Mm-hmm. xam nga ñu ngi rêvé jouer yeneen championnat yëpp mais dañuy xaar mu jot rek. coupe du monde baa ngi ñëw de te yow reyante nga ba takk capitaine sa équipe coupe du monde baa ngi ñëw championnat alors on met les bouchées doubles yëkkati niveau yi parce que coupe du monde bi mu ngi ñëw wala ba léegi yow daal yaa ngi sa coin di liggéey li nga war a liggéey. waaw maa ngi sama ruku di liggéey comme comme li ma la wax rek xam nga euh, na moom am na loo xam ne boo si nekkee moom nekk ci rek ba ñëpp xam ne nekk nga ci quoi. Mhm. loo xam ne kenn du ko forcé xam nga. Mhm. suñu borom bu ko tuddee bu ma waree dem damay dem xam nga bu ma warul dem tamit ma xam waaw waruma dem quoi mhm. mais l'essentiel mooy ñun dañuy fokki suñu liggéey xam nga def li ñu war voilà suñu borom lu mu lu mu dogal rek ñu xam ne moo gën si ñun quoi mhm. mais ñu ngi ñu ngi ñaan nag xam nga bëgg nañ défendre suñu couleur dëkk encore une fois bokk si compétition yu mag yi quoi bokk si compétition euh, yu mag yi moom moom la moom la bépp joueur di souhaiter di leen jox tuuti rek ay statistiques ki nga xam ne ne mooy doomu Sénégal bi di Khadim Rasoul Joxeer di leen wax ne moom euh, bi mu nekkee Lokeren football na 21 match ci saison bi bi mu nekkee euh, Lokeren encore en 2017 2018 joué na 28 match ci saison bi bi mu demee addana euh, Adana Demirspor chaque année dina premier année vingt 27 match la joué deuxième année am 32 match ba dem takk capitaine équipe bam di Adana Demirspor ren football na vingt cinq match am 20 titularisations. te li gën a garaaw si défenseur central saa yi mel ni sa carrière bépp benn rouge laa gis jëm naa def ay enquête si yow nag lu xotti naa fu ne benn rouge kese laa gis moom nga am sa rouge boobu noo ko amee sax yow. parce que daal dañ ne yow moom défenseur bu propre nga macha allah. waaw avant man sama petite catégorie excentré laa doon joué excentré gauche. Eh. waaw ba ma ñëwee Belgique milieu terrain numéro 6 laa doon joué mais coach bu nekk ak yow li nga koy apporter. Mhm. waaw ba may joué axe nag. dañoo joué suñu défenseur bi gaañu coach bi reculé ba mu joué axe après saison boobu ma joué axe après ba mu demee beneen coach bi di ñëwee milieu terrain la ma joué milieu offensif. Mhm. avant ma ñu Arana milieu offensif laa doon joué. Mhm. waaw coach bu ne ak li nga koy apporter ma dem Arana des fois latéral bi gaañu ma dem joué bu wéree ma delluwaat si axe bi am mooy année bi presque saison bi yëpp latéral gauche laa joué quoi. Mhm. waaw parce que euh, suñu latéral bi dafa amoon problème mu gaañu ku si bi ñëw ni ma damay gis ni da ngay jouer latéral fii année année passée jouer nga latéral léegi dama bëgg nga jouer marata ma ne ko waaw pourquoi pas man jour jour laa boo xam ni ragalu ma benn poste pour man jour boo amee yenn talent yi fu la teg danga nga war a fubal xam nga. Mhm. moo waral tey may jouer fii suba ma jouer fee xam nga. Mhm. di ci def loo xam ni damay apporter coach dara. moo mhm. waral ñu may bàyyi foofu quoi. ok mais léegi réponds à gaa yi ne doo dóor daal doo tàkkale moo tax yow doo am carton. <laughs> damay def lépp mais xam nga football intelligence en mouvement la. Mhm. waaw attaquant la woon. Mhm. centre laa doon jouer kon xam naa attaquant yi li ñuy def. Mhm. avant moo waral loolu rek. moo tax nga doo am carton ni ma ko jëlee sax xam nga abi dafa dama amoon jaune abi sifflé penalty ma tàcc ko quoi. xam nga mu rouge la ma. loolu doon di tàccu arbitre. xam nga fin match fin fin fin. bàyyi tàccu la wax ma tàcc <laughs> eh. ma. noonu la léegi nag ñi ngi si njeexitalu interview bi ma bàyyi la nga décliner say objectif cette année. coupe du monde bi mi ngi sa bopp. waaw mi ngi sama bopp moom waaw. tere na laa nelaw wala terew laa nelaw. non terew ma nelaw nag dama nekk nit nit boo xam ni dama gëm suñu borom xam nga mm-hmm. gëm-gëm laay demee. man li nga xam ne suñu borom namm na ko ci man def ko ci man suñu borom lu jot la xam mooy li may wax rek bu ko dogalee ma xam ni lii la dogal bu mu ci waree dem damay dem waaw am na ñoo xam ni ñu ngi yaakaar dem te suñu borom bindul ni duñ sa dem mhm. xam nga waaw dañuy liggéey rek di ñaan yàlla may ñu wér ba am benn blessure mhm. xam nga def ay performance yoo xam ni coach bi dinañu mën a woo quoi. allah mbokk yi téléspectateurs yi Senweb TV tey Khadim Rassoul Joher la ñu seet si on a découvert li nga xam ne ne mooy l'être humain ak tamit le joueur Khadim ma bàyyi la nga tàggatoo. waa maa ngi jaajëfal Sénégalais yi di nuyu ñëpp xam nga di leen gërëm si taxawaay bi xam nga di nuyu sama di di sama waa famille samay xarit xam nga di la jaajëfal yow mi déplacé wu ak waa groupe Seneweb. xam nga di leen masawu tamit coono bi waaw kontaan na trop merci beaucoup. jërëjëf chers internautes je vous donne rendez-vous sur un autre numéro de Focus jaa ngeen jëf.